bu yaay seeni ngor mooy Bamba tey ci xarnu bee ñu ngi fii ci Daaru Tanzil ci màggal bi nga xam ne moom la ñuy defal sëñ Moustapha sëñ ci kër Soxna Daba euh, moom it euh, kenn la ci njaboot bi sëq moom jataay bi nga xam ne nii ko tey euh, naka la taxawoo bis bi waaye tamit wax as lëf ci nga xam ne nii kenn la ci ñoom ñëpp di leen siyaar di rafetlu jotaay bi ah, di tàmbalee ci nuyoo boobu soxna Daba mi nga xam ne mooy borom kër gi di nuyu itam di siyaar njabootu sëñ Moustapha gépp di leen ndokkeel ci bis bi di leen ñaanal suñ boroom tawféex ak yàgg ak wér ba liñ yéen ci seen waajur ñu mën koo taxawul suñ boroom dafa leen ci kawe seen jot di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne itam ñu sori ci ñun lañ di di sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abdou Khoudoss ak sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Rahman nga xam ne doon ay mbokk yu jege lañ yoo xam ne saa suñ amee lu mel nii ñoom lañ ci ñoom lañ ci bokk àndal di nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne itam jotaay yu mel nii daanaka ñoo koy taxawu ñoo ciy def seen ñaq ñoo ciy def seen doole ba pare li nga xamante ni moom lañ ciy amal ci wàllu bernde yu mel noonu ñoom ñooy nekk ca waañ di ko taxaw ñoom it rafet lu seen taxawaay di leen nuyu di leen sargal ci bis bi kon xanaa bu fekkee daa am ñu laaj ñu bàyyi la nga laaj ñu soog a ci waxtaan wi bi nag ngeen ko dundalee ci wàllu berne ak ak ak ak ci wàllu njàng ak waaw bis bi moom comme ni ñu dundalee bisu màggal ndax màggal ca cosaan la la ko waral ak cant la woon. maanaam kii nag ñu ciy fàttaliku koo xam ne maanaam yàlla daa dogaloonoon mu doonoon jàmbaar jàmbaar ci jikko jàmbaar ci doxalin ak ci jëfin doon koo xam ne nit ku ku yàlla dimbale la woon ah, lii firnde ji rek mooy koo xam ne bu mu génnee àdduna ak léegi daanaka mën na ñaar fukki at ak juróom benn ci ren te tey daanaka boo ko tuddee mu mel ni démb la fi jóge kooku kon ak nekkinam jeexal na ko ca lañ ko war a jeexal mu mel ne ku mel noonu la ñuy fàttaliku di koo xam ne li mu waroon a dox ci àdduna ci mission bi ko suñ borom dénkoon jaarale ko ci sëñ bi matal ne ko ba mot sëkk ku mel noonu nag boo koy fàttaliku dafa am nañ koy fàttalikoo donc niñ koy fàttalikoo nag ñun jamono ju ne mooy liñ ciy jiital moo di jàng alxuraan ak xasida buñ xëyee loolu la ñuy tàmbalee balaa dara xew bala ñoo def dara ñu njëkk a wàccee ab kaamil jàng xasida luñ man ak kër luñ man ñaanal ko ci suñ boroom fàttali ko ko ci ñaanal ko sun boroom mu defal ko mu defal ko tawfeex te sàmmal ko gannaawam ba ca yo ba ca topp ya ca topp mooy liñ faral di gis ci màggal rek mu di mu di berne gannaaw bu yooyu jiitoo loolu lañ ci teg mu di teeru gan yi teral leen berneel leen noonu daal ci tënk noonu la ñuy dundalee bis bi ci diggante jàng ak jaamu yàlla ak ak berna mel euh, ñi nga xam ne ni ñëw ci bés bi euh, ci ziar ci ay kilifa ak yu ni mel ndax mën koo ñenn ci njaboot geeg wala yu ni mel waaw kilifa yi moom comme ni ma la ko waxee rek daanaka boo tuddee soxna Daba tudd si Moustapha Abdou daanaka ñaar ñooñu bu ñu la seexee ay mbokk njëkk nga moo tax kuy kilifa ci dëkk bi mbokk nga moo tax ñoom it seen taxawaay daanaka euh, duñ ko wuute ci jamono ji saa suñ teewleelu saa suñ xewleelu mel nii daanaka mooy wut fi jiitu mooy misaal ñu la jox ci mbokk yi nga xam ne xëy na ñoom nga fi fekk ñoom nga fi taseel xëy na waaye kilifa yi amaana comme màggal goo xam ne ñu bari dañ koy màggalandoo dañuy dañuy ñëw ak a dem rek yàlla daa dogal nga tombe fekk ñoom waaye ñoom ñëpp ku ci war a teew rek teew nga fi maanaam taxawuñu ci bis bi ànd ak ñun fàttaliku Sëñ Moustapha Abdou Aziz mel tamit ñuy waxee mm-hmm. waaw mooy li ma la ko la ko waxee sànq rek ci njëlbeen ma màggal moom dundal gi li ci ëpp solo mooy jàngal xuraan ak xasida loolooy maanaam fàttaliku ci looloo ci war a jiitu moo tax ñun ci wet googu dañ ko ciy bàyyi xel baax daanaka bis bi lépp Euh, noonu lañ koy dundale comme ni nga ko waxee Cheikhouna moo nekk noonu di jarang moom it mu doon koo xamante ni ko la ci ñun ba saa su waxtu yi ñëwee maanaam taxawaayam dañ ko ci seet lool ba jamono ju ne moo koy teewe ñaanal ko soon borom mu defal ko taw fee gën a gën a gën a gën a gën a wéral baatam barkeb sëñ Baab digganteeg moom nu mu demee ak tamit loolu mën a wax ci moom. waaw bari na xam nga si Moustapha Abdou moom yàlla ba mu dogalee mu doon waajur daa doon royukaay ci ñun ah, ndax ni ma la ko waxee boo jëlee ci wu askan yàlla dogal ne mu bokk fa mu war a bokk ndax ñi koy séq daanaka sëñ Tuubaa rek lañ muy ci wetu waajur wu jigéen ak ci wetu waajur góor boo xoolee waajuramu jigéen sëñ Basiru moo ko jur waajuramu góor sëñ Baara ko jur mu mel na kooku sëñ Tuubaa ci dret nga xam ne kon fi mu war a bokk ci doomi soxna bokk na fa waaye doyloowul loolu ba mu jógee ca loolo li doomi soxna war a toogaalee da koo dem wuti mu di xam-xam mu sàkku xam-xam ba am ci lu wér loo xamante ni mën na koo dimbali ci la mu bëgg muy mottali jaamu yàlla gi mu boole ca di jaamu yàlla dama jàpp ne bu ñuy wax doomi soxna looloo tax maanaam xam-xam ak jaamu yàlla am xam ak jaamu yàlla nag daa wuute ndax nit mën naa am xam-xam te du ko jëf waaye moom yàlla da koo defaloon tawfeex mu amoon xam-xam daan ko jafe ba looloo waral tey ñaar fukki at ak juróom benn ca gannaawam tey koo tudd bu fàttali la loo xam ne ci moom doxoon na digganteem ak moom loo xam ne ba léegi eh, da koo jàpp mu doonoon aw yi wala lu rafet magi taalibe yi koo ci waxal ci ñoom li mu lay wax mooy sëñ Moustapha Abdou Aziz fi ma tegoon tegu fa kenn mu mel ne kenn ku nekk ci magi taalibe yi jàppoon na ne nam ko defoon defu ko defu ko kenn mu mel ne kon ñoom ñëpp la ëmbaloon yiw ñoom ñëpp la amaloon jàmm ñoom ñëpp la daan teete daan leen wommat jëmale ci yoon yàlla moo tax saa suñ ko gisutul dana am loo xamante ni luy luy manqué ci moom la moo tax duñ ko gaaw a fàtte dama jàpp na itam buñ naan kilifa wala doomu soxna wala ab sëriñ sax loolu la wund mooy maanaam jiite am mbooloo ndax tudd di tudd sëñ rek looloo looloo looloo njëkk doon sa mission ci àdduna mooy wommate jub ak di wommate jëmale ci ak njub moom nag dundam gépp ci loolu la ko jeexaloon dundam gépp ci loolu la ko jeexaloon mu doon koo xam ne ñun maanaam jërul ñuy jéggaani royukaay ñun xam nañ koo xamante ni doy nañu sëkk ci royuwaay te moom gannaaw waajur yu royuwaay la ci moom loolu ñu lu ñu jàpp ci ñu jàpp ci moom la lu ñu marqué ci moom la itam jikko ju rafet ak taxawaay bu rafet ci dongo yi ba ci dongo yi koo ci laaj euh, seere bu mel noonu lay am ci moom bëgg gum ko bëgg te loolu lépp jikko ju rafet da koy waral ak jëflante bu rafet boo xam ne doxoon na sa di seede digganteem ak dongo yi ak digganteem ak yeneen mbokki taalibe yi nga xamante ni moom la ko yàlla dénk noonu. xanaa di sant rek di sant di sant ñëpp di. Euh, di rafetlu jotaay yi surtout mbokki taalibe yi ndax ñoom kenn amul seen fay maanaam jëf jum jëf moom lu néew néew rek laaj na jërëjëf te ñoom seen waxtu yëpp ak seen doole dañ koy jeexal ci sëñ bi bu leen gisee seen taxawaay ci bis yi daanaka bu ma tee ñoom ñoo ko matal moo tax sant bi moom amul ab jëm ci ñoom dañ leen di sant bu baax baax di ñaan suñu borom def leen ay mag kàttanal leen lépp loo xam ne bëgg nañ koo liggéeyal sëñ bi ñu am ci lu kawe seen jot di sant itam njabootu sëñ Moustapha Abdou Aziz gi nga xamante maanaam bëgg nañoo jëmmal ginnaawam ba waral ñu woote leen ñaanal suñu boroom gudd fan ak wér ba euh, yéene ji nga xamante ni yéene nañu ko taxaw seen waajur ñu mën koo ñu mën sant mbokk yi itam nga xam ne ñoom luñ nekk ña nga wax dëgg yàlla seen taxawaay daa rafet lool euh, fu ñu teew ñu teew fa muy naqar ak bànneex lu ñu am ñu ànd koog ñoom ñi di leen sant bu baax a baax di di leen gërëm maanaam di sant di sant ñëpp ndax ku lim juum di leen sant yéen tamit ci seen taxawaay ndax lu mel nii dañ koy rafetlu ndax dina mën a tax ki nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku ñu gën koo xam euh, ndax ku mel noonu dañ ko war a xam. ndax jamono dafa tumuranke li yonent bi doon wax ba daan lislaam xariban fa sa yaqud fa yaqudu xariban fa tuuba lil maanaam diine dafa sosu ci tumuranke te ci tumuranke lay mujj waaye bu boobaa texe dana ñel ku nangoo tumuranke maanaam dañoo toll ci tumuranke diine fi mu tollu tolluwaay boo xam ne laaj na ndaw ñi am ay royuwaay laaj na ndaw ñi am ay sukkandikukaay gaay ndax bu ñu ko deful rek maanaam di leen di fëkk dana leen fëkk te fam leen jëme boo amee koo xamante ne xëy na meloon na lam meloon nekk ci sëñ daan ko dundal daan daan daan bay waaram ci yoonu sëriñ Touba bu la ko yàlla dénkee mat nay fàttali ndax dana tax euh, gone yi am royukaay te seen royukaay doon doon doon royukaay bi gën ba lii fëkkee du leen fëkkee te li war ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ bi ñu mën caa nekk ca nam gën a ca waaw loolu daal laay lay lay lay lay tëjee ñaan suñu boroom mu defal ñu ko ay at yu bari ñu fekk ko ay at yu bari ba saa su ñëwee ñu man ko mën koo fàttaliku ca nam ko gën a bëggee ca nam gën a Thank you.

mat na xamul Amen.